De quel droit dispose-t-on sur une terre quand on l'a occupée et cultivée pendant plus de 50 ans C'est la question qui se pose dans une nouvelle affaire de foncier ici à Lindin. Les maraîchers euh, qui mènent ici leurs activités depuis plusieurs années ont vu ressurgir un propriétaire foncier qui dit détenir des papiers administratifs et qui aujourd'hui souhaite les déloger pour y construire une station de service. Il est à craindre que l'Indien perde sa réputation de grande pourvoyeuse de légumes, au rythme auquel l'urbanisation fonce vers les dernières surfaces de cette zone agroécologique. ñun suñu problème dëgg-dëgg fi mu toll nii mooy problème mu suuf si problème mu suuf mooy suñu problème fi mu nekk nii waaw ndax dafa am nit ñoo xamante ni ñoo fi ñëw di jéem a xëccoo ak ñun suuf si ñun loolu mooy suñu. jafe-jafe bu njëkk. C'est l'histoire d'une affaire de foncier qui ressurgit. Il y a deux ans, de London s'était opposé à un lotissement de cette zone agricole, un bras de fer qui les opposait à l'ancienne équipe municipale. Le maire d'alors de Rufisque-Est, nommé Boubacar Albendoy, a voulu mettre un lotissement. Donc nous nous sommes opposés à, à ce lotissement. Donc euh, après Euh, nous avons eu gain de cause. Bras de fer qu'ils avaient estimé gagner, mais aujourd'hui, ils font face à un nouveau front. Bon, le problème, c'est un problème foncier avec euh, des, euh, une, entreprise, une entreprise nommée MK Excellence qui se trouve vouloir ériger une station d'essence ici dans cette zone. Voici La station-service en question, en phase de construction sur un terrain de 1750 mètres carrés obtenu par Pierre Mboupe travaillant pour le compte de MK Excellence, une société spécialisée dans la distribution d'hydrocarbures raffinés, station d'essence carburant. dañoo am suñu terrain ñoo ko moom jaar fi ñu war ci administration Sénégal muy CADAS am dugal ko par la voie du ba du bail jaar cadastre urbanisme impôt protection civile ñëw visiter suñu terrain. Depuis quelques années cette zone constituée d'espaces humides d'une importante valeur agricole continue d'abandonner des pans inquiets de ses terres aux promoteurs immobiliers une situation qui menace les activités horticoles et pourtant les nouvelles autorités municipales avait promis de mettre fin à la prédation foncière. maire bi bi mu njëkkee génne sorteem bi mu njëkk a def Elimane Sakho Sembène yaakaar naa ne ci zone boobu ci affaire station boobu juste moo amoon wax si la ñëwoon bi mu ñëwee mu ne incha allah rabbi tant que moom mu ngi fi du mës a signé benn këyit goo xamante ni moom bu mu bind bu mu signé bu jëm ci lendeng mais malheureusement. dafa dem ba ci biir mu wane ne moom ci boppam ñu toog ak moom mu ne moom dafa signe signé na kayit gi ndax li tax mu signé kayit gi dafa juum moom noonu la ko waxee. La mairie dégage ses responsabilités et dit avoir délivré le permis de construire à la société MK Excellence en toute légalité. maire dafa ne li ma signé dama ko signé en toute responsabilité. muy autorisation de construire station MK Excellence daf ko signer en toute responsabilité en tant que maire de la commune de Rufisque Est l'État et une continuité am na ñu fi nekkoon mu nekk ay dossiers yoo xam ne fi lañ ko fekk waaye bu ñu defee passation de service nga lawaay bu ñu ñëwee fekk fi kayit dañ naan équipe bi fi nekkoon naka signé waaw wala déet yaakaar naa ne ki fi nekk moo ko war a signé Au Sénégal, les stations-service sont considérées comme établissements classés et leur implantation, surtout dans les zones comme celle-ci, obéit à des règles. Elle est autorisée par le ministère de l'Environnement à travers la direction de l'environnement et des établissements classés. Mais ici, les maraîchers s'interrogent sur l'application du dispositif réglementaire. dëppoowul ndax gaasaal ku ne xam na ne day dox ci suuf di naaw ci kaw loolu méngoowul ak ñun lañ fiy def ndax bu fekkoon ne da jëndoon pour ñëpp di bay maanaam danaa faral di wax ne gàncax mënta yàq morom mi dañ koy dalal sax pour mu mën a bay bokk ak ñun li ñuy liggéey loolu daal moo tax ñu xawoon a kontar li nga xamante ni moom la fa bëgg a def. ñëpp xam nañ ne li ñuy wax carburant. àndul ak àndul ak àndul ak environnement àndul ak maraîchage loo xam ne loolu ay ay ay ay ay ay ay fossile la àdduna bi yëpp di ko xeex ñu ñëw ba ci nga xam ne fu nga xam ne mooy mooy mooy mooy poumon vert nga xam ne mooy aar Tëngéej yëpp ñu bëgg ko faa def di yàq mbéy mi loolu ñun loolu la ñuy wax ne ñun ànduñu si tey ànduñu si ëllëg te bëgg nañu euh, autorité Tëngéej yi autorité étatique yi jóg si parce que maraîchers yi loolu duñ ko nangu. Pourtant, le promoteur di avoir fait une demande à usage commercial. Requête après la réalisation d'une étude d'impact environnemental et une vérification auprès de toutes les autorités concernées. Ce qui explique, selon lui, que tout a été fait dans les règles de l'art. Est-ce que man am naa sañ-sañu dëkk bi am préfet am sous-préfet am président de la République am gouvernement am lépp am administration ñi nekk cadastre urbanisme domaine mairie ma ñëw di tabax par force loolu dafa mën a ne xam étude boo xam ni boo ko defaree ba pare. Euh, service de l'État yi yor affaire environnementale yi daf fay jaar ñu approuvé ko ñëw ci site bi protection civile ñëw ànd ak le préfet ñu taxaw tamit xool approuvé ngay doog nag avancé ñu yóbbu ko ci gouverneur commission bi daje ñu approuvé loolu lépp am nañ ko étude baa ngeen ñun. Une thèse que soutient la mairie de Rufisque-Est commune dans laquelle se trouve ce poumon vert, véritable îlot de fraîcheur, qui voit aujourd'hui son avenir menacé par l'urbanisation galopante de cette zone de Rufisque Est. parce que dafa déposé ay kayitam li mu war a déposé ak normes yi li mu laaj lépp station ku koy def di di nga am cutis environnemental oui moo ci gën a tuuti. ñun autorisation construire lañ fi fekk signé ko dafa fekk tous les services yi ko war a signé nañ amul dara loo xam ne laala nañ ko wala jigéen nañ ko si. D'une superficie de 200 hectares il y a quelques années, aujourd'hui l'Andain est réduite à 56 hectares. La frénésie immobilière l'a fait perdre plus de 75% de ses réserves foncières et les seules terres sont fortement menacés par la bétonisation à outrance. Nous, nous, nous allons tout faire pour préserver les 56,83 hectares qui restent. Oui, c'est le seul point vert de la ville de Rufisque. Cette zone regroupe plus de 185 producteurs. Plus de 185 producteurs. Plus de, 2, plus de 400, plus de 400 employés indirects. En, euh, 200, plus de 200 femmes journalières qui y travaillent. Donc ça, c'est énorme. Se souvenir de ce qu'était la zone de Lending il y a quelques années seulement renseigne suffisamment sur l'ampleur de cette forte urbanisation marquée par la disparition presque forcée des exploitations familiales par périmètres entiers suivant une cadence accélérée. Et à ce rythme, si l'on y prend garde, cette zone pourvoyeuse de légumes qui emploie directement plus d'une centaine de personnes risque tout bonnement de disparaître dans les prochaines années.